suñu entretien yi nga xamante ne dañu koy def euh, jëmale ci li nga xamante ne mooy Covid 19 feebar bi nga xamante ne moo lëmbee àdduna rawatina fii ci Sénégal tey nag ñu dalal ci suñu plateau ki nga xamante ne mooy Marie astu njaay nekk kenn ku nga xamante ne ni bokk na ci ñi njëkk a nekk nu gox fii ci réew mi de par une formation bu nga xamante ne defoon nañu ko ngir euh, daal di dapp yooyu nga xamante ne soxna ñooy nekk ci koñ yi ngir jàppale askan wi gën leen a jege it xanaa rek euh, laataa ñu leen di bàyyi moom dañu leen di nuyu te it di féddale seen di leen féddale seen coloré ci émission bi nga xamante ne tout le temps yéen a ngi koy seetaan yéen fidèle téléspectateur Dakar Actu kon nag euh, maman ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ak askan bi. waaw may ñu ngi leen di fay di leen dalal jàmm di leen gërëm di leen sant ah di kontaan ci émission bi parce que ñun tamit lii rek la ñu bëgg loo xamante ne nii dayee askan wi moom la ñu bëgg macha allah. Euh, ñu daal di rek dugg ci li nga xamante ne mooy euh, objectifu émission bi maanaam waxtaanee li nga xamante ne mooy coronavirus doon feebar bu nga xam ne mosu fee am waaye bi mu ñëwee ba tey mu ngi def ay jaloore yoo xam ne ñëpp a ngi teg seen bët yéen ngeen nekk bàjjenu gox gën a jege askan bi tey jii ban participation ngeen am euh, bu ngeen di def ci population bi ak yooyu. ñun de participation bi ñu am rek mooy d'abord bala maa egsi ci loolu di masagu ñi nga xamante ni dañoo dañ ci loru. te mu doon feebar boo xamante ni bett na ñëpp te lu la bett rek daf lay man bu ñu xalaatoon ni nii lay demee dinañu teel la jël sunuy matuwaay bala moo egsi fii di masawu réew yi nga xamante ni ñoo ci am ay moor yu baree bari ah di sant yàlla rek tamit te xam ne daal bala la suñu borom bi moo ko fi wàcce ñu ciy sant suñu borom bi bu baax a baax waaye lu ñu bett la lu ñu bett la lu mett ci réew mi la dëgg la léegi nag yéen nga xamante ne yéenay bàjjenu gox yi gën a jege askan bi eh, mel na ni am na rôle bu mag bu nga xamante ne yéen a ngi joué ci koñ yi ak njaboot gi. waaw rôle bi ñuy joué mooy cet gi rek yokk set gi comme niñ ko waxee rek toog ci kër yi di raxasu ah di téye xale yi bañ a joxe loxo comme niñ ko waxee macha allah gën a fàggas ni ko rek. ci wàllum sensibilisation bi ak communication bi nga xamne dañ koy wit ci febar bi fo ñu ci tollu ak askan bi. ñi ngi ci nak ñi ngi ci bo ba legi ñi ngi ci wax nala, yàlla sonn ñu tayu ñu bo ba tay ñi ngi ci ku ñu tassel la la defal sa masque ku ñu tassel la la de len def de la raxsu ba set di def seeni détergent yi machallah Euh, ñi ngi ci dal ci walum ci walum jappal bek ndimbal bi tamit ndax bok na ci yi nga xamantene da ngeen koy faral di jox njabot gi ngir gën leen ñaax ci li nga xamne moy ciat ki bi tamit ñi ngi ci ñi ngi ci ndimbal bi ndax ndimbal weesuwul ah toujours rek nga leen di ñaax ci set gi ak tok ndax lolu mom moy indi contact yi waaw bo seté dal tok comme niñ ko waxé rek bañ a def loo xamante ni nii daf koy indi éviter regroupement yeeg natt yeeg yooyu. Mm-hmm. ñu ngi gis ne it feebar baa ngi gën a jël ay proportion maanaam mu ngi gën a aggravé wu chaque jour que tu fais ñu gisoon tamit ne que état bi jëloon na ay matukaay ngir daal di jël ay aide alimentaire daal di koy jagleel ñi nga xamante ne ñooy néew ju doole ñu gis ne que it yéen am ngeen ci rôle bu mag boo leen ci war a joué ci wàllum recensement ak ci wàllum organisation bi. ñu ngi ci ndaxte aide euh, euh, yi état bi joxe woon dañ ne woon chef de quartier yi ñoo koy séddale ak bàjjenu gox yi waaw léegi ñu ne euh, seddale bi dafa war a jaar ci yoon jaar ci yoon bi mooy ñu bañ a xam nga nit ku ñuul dafa dëgër bopp am na loo xamante ni buñ la ko waxee soo ci toppee rek du egg du egg fu fu metti waaw depuis ñu ne leen toog leen bu kenn génn raxas leen seeni loxo éviter leen génn yu sew sewaan yi parce que tamit loo xamante ni nii yow waroo xam nga ni lii daf lay indil ëllëg musiba war nga koo éviter buñ ko éviter woon duñu egg fii yëpp mais pour affaire aide yi ñun tamit ñi ngi ci parce que chef de quartier bu ma woowee daf may woo woo euh, ASC bi woo habitant cité bi woo imam bi ak euh, représentant catholique yi bu ñu woowee ñu daal di toog segg waa koñ bi xool ñi nga xamante ni yelloo nañ ko ñu bind leen ñi ko yelloowu tamit ñu ne vraiment ñi daal yelloowuñ ko jarul ñu leen di bind te buñ bu ñoom ñoom dinañu xam ne lii yelloowuñu ko comme tey ji amoon naa ci benn cas xam sama dëkkandoo bi dañu dindi kiiwam euh, photocopie carte d'identité ma koy ñaawlu ñëw di ko wax ndaxte tamit damay bañ mu yaakaar mais daf ma ne loolu amul benn problème nañ ko jox ñu ko yelloo. Mm-hmm. ñu daal ci noonu la ñuy dox ñu koy yelloo rek la ñuy bind ñi ko yelloowul duñ leen ko jox. ci wàllum euh, euh, poñ boobu nga wax muy ñi ko yellool tey ji ñan ñoo ko yellool nan la yan critère la ñuy xool tey pour xam ne kii kat yelloo na ko ak kële kat yelloowu ko. waaw parce que bu fekkente ne Scat bam la fii ñun ñi am nañu quota. 223 astaghfirullah 323 323 yoyu wa par quota la par skat yu bam yëpp ñu jox nañ suñu chef de quartier 323 léegi biñ ma wowe wo ñima la limal ñi ku ci nek dañ la euh ñi nga xamanteni ni ay retraité lañu té amuñu location seen kër yi té jabot ah ñooñu da mën nañ leen jox. mais ñi nga xamante ni gaa retraité nañ sax te am ay location nekk ay fonctionnaire te euh, yàlla mën na leen tamit ñu am seen doom yoo xamante ni nii am nañu doole. ñu ne daal ñooñu daal nañ leen teg nee. ñu xool ñi nga xamante ni nag seen kër yi amul location te jaboot nañu te seen papi retraité nañu wala ñu seet veuve yi. ñooñu la ñuy jox. waaw eh, ci waxtaan ñu ngi doon wax démb yaa ngi doon wax aussi si ñi nga xamante ne tey jii peut être ñu ngi ñu ngi leen di jox ay ndimbal feneen ci mel ni caisse de sécurité sociale wala ñooñu duñu bokk it ci ñi nga xam ne ñoom la ñuy tànn waaw ñoom nit ñu ko waxee dañu ne dèjà ñi am bourse familiale euh, jaruñu leen di boole ci lim bi ndax daf ñuy tardé te dèjà ñi am bourse familiale bari nañu muy góor di jigéen waaw muy mag di ndaw am na ci bari ñoo xam dañoo am bourse familiale dañ ne ñooñu am bourse familiale dinañu am mais buñ leen boole ci lim bi pour le moment ndax dañ ñuy tardé te déjà ñooñu seen photocopie daan teg seen euh, kii yëpp ñu ngi mi ngi maire yi. bokkuñu ci priorité yi daal. non non bokkuñ ci mais ñoom dinañu am ñoom seen bos moom seen quota dañ koy génn à tegal leen. waaw euh, yaa ngi wax sànq ci sa biir wax ne que da ngeen di recenser soo leen di recenser di ngeen di récupérer lu ci bëri photocop photocopie carte d'identité bu nit ki euh, loolu euh, xam naa dina am ñu ci bëri ñoo xam ne tey jii seen xel dina dem si est-ce que du tamit politique ndax amul njeexitalu politique. waaw munu cee ñàkk nag ndax am na ñoo xam ne boo leen laajee duñ la faale sax man bi may door a commencer am na ñoo xam ne bu ma leen laajee dañ la naan waaw rek doo leen gis mais bi ñu commencé recensement bi ba nga xamante ni nii am nañ ci lu leen leer léegi ñoom chef de quartier bu ñu récupérer photocopie carte d'identité yëpp ba toog analyser yëpp léegi moom day dem këram bu demee këram ak waa këram ak ñu koy jàppale mu jël photocopie carte d'identité yëpp kenn ku ci nekk boo joxee sa photocopie carte d'identité day amaale sa adresse ak sa numéro téléphone mu woo ñëpp ku ci nekk mu laaj la yow ci loo yëngu loo nekk ndax yaa ngi li yaa ngi li su fekkee yelloo ko moom da koy xam waaw xam naa tamit dañ ci boole rek chance la aussi tamit waaw waaye moom daal dina la wo ba leerlu daal ñu daal di lay dugal en tout cas euh, jot naa dégg si ay wax ne que peut-être c'est ça peut-être c'est pas ça yaa ñu ci mën a leeralal ñu ne ñi nga xamante ne bokkuñu si nguur gi maanaam amuñu féete ci côté nguur gi ñooñu duñuy priorité ñi nga xamante ne nag ñoom ñoo bokk si li nga xamante ne mooy APR ci militant yeeg yooyu ñooñu la ñuy gën a privilégié parce que ñoom ñoo ne ci nguur gi. ah pour le moment nag ñun ni ñuy liggéey nii man gisaguma fi loolu te ñun suñu groupe yi suñu groupe bu bàjjenu gox yi euh, dañ def groupe whatsapp chaque jour suñu présidente bi daf ñuy woo moom grand wef la dëkk daf ñuy woo saa yu ñu xëyee daf ñuy woon nan ngeen mujjee nan ngeen defee seen commission bi nan ngeen ko doxalee nan ngeen ko lii nan ngeen ko laal nan ko ni mais dañ ko jaareel ci yoon amul ku nekk APR wala kuy politique wala kii ñun bokk suñu suñu gox amul fii te ñoom tamit seen gox amul fa parce que ñun chaque jour ñu ngi déggante. kon daal mbirim kumba am ndey kumba amul ndey moom. amul ci amu ci déedéet. Euh, d'accord ci yàlla rek tax may wax. gis nañu ndax dañ ciy def suñu kéemtalaay kàttan ba du ci am. ndax li tax dañ ñu dugal. ndax comme ñun depuis 2009 am nañ suñu diplôme bàjjenu gox te mooy premier tranche bi nga xam ne ñoo jëkk a def formation am suñu bàjj euh, kii euh, diplôme bàjjenu gox Ablaye Wade moo ko signé ak Modou Diagne Fada man sama diplôme mi ngi nii. donc euh, boobu ba léegi ñun gisuñu ci gisuñu suñu bopp daal waaw te lépp luy coono rek ak lépp luy métti rek ñun dañ koy jànkonte ak ñoom nee naa leen nag sante moom ah, <laughs> yàlla daal moo ñu ci boole. ndax ku nekk xam na ni pour nga nekk santé dafa metti ay at yu baree baree bari la pour nga nekk ko bu ñu demee nag ñun ba boole ñu ci ñu boole ñu ci faf yàlla def Abdoulaye Wade mi ñu ci boole woon yàlla teel ñoo tàqali ak moom macha allah yal na ko fi yàlla bàyyi ay at yu baree bari bi mu bi mu ko defee moom xam naa ne moom bu fi nekkoon ba léegi daggal nañu salaire ñu nekk ci loolu nekk ci loolu mu metti lool gisuñu ci dara suñu bopp wax dëgg yàlla ay wote buñ la wowe ni ay 6000 lañ lay jox pass wala ay 20000 pour car wala ay li wala li da ngay amna ñu bari ñoo xam dañu découragé tok mais légui nak bi nga xamanteni nak ñi ngi commencer nak machallah nit ñi nak ku nekk bëgg nekk bàjjenu gox waaw bàjjenu gox nit nekk ku nga xamanteni mom mo gëna gën askan bi surtout fu mu fété mom ci koñ ba mu fété njabot gi dañuy gën di faral di waxtaan ak mom mu leen di nemmeeku lu ci bari. xanaa sant yàlla rek jano gox bu bax la ñam bu meuna dimbulé bu meuna a uuf njaboot bu am sutura bu and ak ñëpp bëggul kenn mer wax dëgg yalla mu dañuy jappalé ta kenn du ko di waxal ci lu bax ci nit ta lool rek doyna na sant yàlla wax dëgg yalla luñ ko jox dal bo egsee ci moom dana egsi ci nit waaw ku ci am problème de wax ko ko mu dimbalé la ci man mi fi ma doon jaayee ma mairie kii di ma fi yëkkati dafa ñëw wax ak ñoom ñu bàyyi ma fi ma fay juute bu ma amee problème sama waa kër léeg-léeg feebar daane leen guddi damay woo doomam woo ko mu woo doomam mu ànd ak man hopital hôpital bi mu nekkoon fii samu man baax rek laa ko xamee de am itte ci nit mën a sonn ci nit ni nekkaguñu ci confinement total waaye peut-être ci leen jëme ji waaye laata loolu nekk nañu ci li nga xamante ne mooy couvre-feu bi ak wàññi nañu lu ci bëri njaboot gi léegi ci biir kër gi la ñu gën a passé seen temps ñi doon liggéey sax léegi télétravail la ñuy def kër dinañu gën am temps pour gën a xamante gën a passé du temps ensemble en famille eh, tey jii ndax yaakaaroon ne loolu am na ay côté positif comme ay coté négatif si oui yan ci la kii mu fi bàyyi si yi mu bàyyi ah kontaan nañ ci waaw ku ci man ni man mii nga xamante bu ma tëddee heure bu nekk maa ngi jug xale yi fu ngeen nekk fu ngeen nii ñu taxawaale ko ten defal mm-hmm. ah man kontaan naa ci mm-hmm. waaw teg ci tamit violence amatul wala bu amee bariwul mm-hmm. rey yi nga daan dégg amatul bu amee tamit bariwul te ñun loolu yëpp suñu dañ ko doon métti lu te xamuñu fan lañ koy jooyee waaw confinement bi daal dañ cee kontaan kontaan macha allah. sant yàlla rek am na ci ñoo xam ne moom wax dëgg yàlla sant nañu. sant nañu bu baax a baax a baax ndax ñu ngi gis seen jëkkër yi ñu ngi gis seen doom yi ndax léegi moom ku génn rek yëpp di daal sa kaw waaw. kon daal fi mu nekk nii jéeg ji kontaan nañu te suñu sañoon nii lay woyee. lool jéeg <laughs> jëpp kontaan kay mais n'empêche am na sëy yu ciy tas ndax tàmmuñu woon nekk chaque jour xamante wuñu woon. asegg te <laughs> tas bu xalaat. en tout cas ñu ñëwaat rek li juste si rôle lu bàjjenu gox yow mi nga xam ne aussi comme ni ñu ko waxee sànq ba léegi yaa gën a jege njaboot yi. pour ñu dimbali jigéen yi ñi ngi ñi ngi def natt boo xamante ni nii. pour dimbali jigéen ñi la parce que banque dafa metti intérêt banque dafa metti léegi ñu ngi def natt boo xamante ne ni chaque chaque mercredi groupe de trente personnes la groupe de trente personnes yi kenn ku ci nekk dangay joxe deux mille francs lay commencé ba dix mille benn part bi mooy deux mille ba dix mille am na it social trois cent trois cent trois cent yi boo joxee deux mille francs da nga ciy dolli trois cent boo joxee dix mille da nga ciy dolli trois cent ndax 300 yi dañ koy dajale pour ku fi am problème boo xamante ni nii war nañ la mën a dimbali rek ñu dimbali la ko ci. bu ñu demee ba nga xamante ni tabaski bi mat na des na benn weer ñu toj kees gi daaw bi ñu ko tojee am nañu 2 millions 800 bi ñu amee 2 millions 800 ci 30 personnes yi. ñu séddoo ko mais tolloowul parce que tolloowuñu li ñuy natt waaw ñi gën a ëpp li ñuy natt rek ñoom ñoo ëpp bénéfice waaw condamné la loo natt bu dee kay benn part dañ ko def ci carnet bi carnet yaa ngi nii kenn ku ci nekk ak carnet bu feesee ñu jox la beneen carnet bu dee euh, euh, cinq part la ñu def ko ci carnet bi carnet yi ci la ñuy sukkandiku ba lépp daal dañuy bëgg rek euh, mesure de prudence waaw dañuy bëgg rek mesure de prudence ba moo waral ñuy def carnet ak ñetti registre yi nga xamante ne ni adjoint trésorier ak adjoint trésorier kenn ku ci nekk am sa carnet bu mercredi jotaan ba 3 heures de demi jot quatre heures mooy fii day fees de ak nit macha allah mais léegi nag comme que dañu ne vraiment nañu tasaare as waaw moytu assemblement bi moo tax trésorier mooy ñëw. ak ben wala ñaar te ku ñew da ngay natt rek dem motax amatuñu ben activité. d'accord kon xana dañu lay bay rek nga dal di tagato ak ñi nga xamne ñoo la doon sétane sa dernier mot. ma ngi contane ci may ma ngi contane ci émission bi machallah di leen gërëm di leen sante parce que tamit ñun li rek lañu bëgg ah sante dal sante rek di ñaan yalla yalla jëlé fi feebar bi di gërëm sama borom kër. xamante ni eh, am na loo xam ne su ma ko mënee yàlla ak moom moo tax di sant sama njaboot gépp di leen sant yéen ñi eh, xanaa rek eh, di tàggatoo ak yéen di leen jox beneen dig daje ci beneen samedi incha allah ñu waxtaanee li nga xamante ne mooy coronavirus ak jeexital yi nga xamante ne ñu ngi ko siy nemmeeku ak ampleur bi nga xam ne mu ngi am di ñaan aussi feebar bi daal di gaaw rek daal di fiy jógee ñu daal di woor ci jàmm pare ci jàmm continuer suñuy activité